xale yi Thiès xale yi Tivaouane xale yi mbuur xale ñoom yàlla rek moo leen di fay parce que xam nga àndu bi ñu ànd àndu yéene la ak yaakaar yéene yaakaar nag yàlla koy matal nit ki day sabab rek mais kiy matal moom mooy yàlla soo nekkee ci lu la yàlla teg say wajuur yëpp am xalaatu di la ñaanal ñi ñeewante la ñii di la ñaanal su la yàlla xawee tekki loolu tànku jëkk mooy nga dem gërëm sant ña la doon ñaana loolooy solo tànk yi du tànku politique du tànku tànku seeti suñuy wayjur suñuy kilifa ànd ak ñoom sant yàlla mais sant leen yéen parce que ku nekk ci yéen ñaanal nañu ngir ñu attan loolu kenn du la ñaanal nga génn yàlla moo la fa dugal bis bu paree rek nga génn mais ñi lay ñaanal pour nga mën ko muñ ba doo saalit ba dara du la fa fekk ñooñu la ñuy gërëm moo tax ñu ñëw fii tey gërëm leen sant leen mënuñu leen fay nag yàlla rek moo leen di fay yàlla na leen yàlla fay dama ni Sénégal kilifa yi ñu am ñun ñëpp dox nañu àdduna ñun ñëpp dugg nañ ci àdduna mais li ñuy tiitaroo mooy yéen ñii amuñu ku leen gën amuñu ku leen raw amuñu ku leen ëpp amuñu ku leen mën suñu fonkee suñuy waajur ak suñu kilifa rek lu bari dana yomb ci dëkk bi suñ leen nawee di leen tiitaroo lu bari dana yomb ci dëkk bi moo tax yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla sargal gën leen dëgëral. bi ñu la dalee suivre ak tey fii nu toll yar teggin ak saa bu nekk rek nga ñuy wan ni ñu. man yàlla laa gëm yonent bi sallallahu alayhi ci école am laa jànge kon nag boo amee doom ju mel noonu moom. te mu nekk ci buntu réew mi te xam ne junni junni nit ñoo koy déggu mhm. te mënoo maal bi moo ko wax mhm. waxul ñaaw mhm. deful ñaaw nga di ko xoolal sa bët bu waxee nit xam ne ñun nit ñu mel noonu la jàpp mu ne bu fekkente ne njaboot nga nekk ci réew mi mu ne ak ni réew mi tëddee ci wax wax joo xam ni dafa juunu lu neex waay mu wax mu ne yow nga bokk ci ñi nga xam ni ay junniy junniy nit ñoo lay déglu di la suivre di la topp te waxagoo fi lu ñaaw defoo fi lu ñaaw lu nit ñi di teg baaraam ne lii moo am mu ne kon loolu la ñuy téyee ñun sëriñ Muniiru ak rakkam yi ak njaboot gi ak taalibe yi loolu la ñuy téyee nit ñaanal bu baax waaye nag sant gi ñu ngi ciy boole ñaanal la yàlla. ñaan gi yëpp nag. lii lii. bu koy li ngay ñaanlu. li ngay ñaanlu. bu la dee jig. bu la dee jig. na la ko yàlla jox. xam naa ni foofu loolu nga souhaité. xam naa ni mu jig la ngay ñaanlu. ba lii la yàlla jox. mu jig la def ci teraanga nga def ci ay teraanga. lu baax lu ne lu nuy yaakaar ci yow yàlla won nu ko ci yow bu la jigul bu la dul jig da nga def loo xam da nga def loo xam ni njaaxum rek lay doon te ñun bëgguñu te ñun bëgguñu ci yow loolu ñu ngi lay ñaanal kon ñoo ngi lay ñaanal li lay jig li lay jig yàlla na la ko buur yàlla defal ci barke yonent bi ci mbaaxu ku baax ki Seyduna Muhammadin mu ne xalifa place bi ku bëgg dëgg ku bëgg dëgg da fi ñëw fii fii ku bëgg dëgg ku bëgg a dégg dëgg da nga fi ñëw fii fii ku yaakaar ne dañ sa ginnaaw ku yaakaar ni dañ lay wax lu la neex rek rek demal sa yoon mu ne doo fi ñëw demal sa yoon da nga dégg dëgg loolu lañu sunu kilifa yi loolu lañu sunu baay ak sunu maam yi yaree loolu lañu fi yaree loolu ñëw nga kon ñëw nga sa kër maam sa kër maam yaakaar yaakaar ji yàlla bu mu tas mukk ci baaxu ko baax ki sayduna muhammadin barke nag wali yàlla yëpp waaye nag ñu ngi lay dénk na nga muñ mu ne gor day muñ gor gor day xool seet làmmiñam day xool làmmiñam gor gor day xool bëtam day sàmm bëtam gor gor day xam ne day xam ne ay nawleem a koy déglu ay nawleem ñoo koy déglu gor day xam ne day xam ni ñi ko contre nga koy ñi ko bañ kontre ko ñu ngi koy déglu waaye ñi ko bëgg a topp ko ñu ngi koy déglu sama baay dafa wax ne sama baay daf daan wax ni wax sànn la mu ne wax sànni la sànn la sànn bu sa loxo bu génnee ci sa loxo rek mënatoo ko contrôle doole mënu ko ko jàpp kon ñoo ngi lay xool ñoo ngi xool bu baax mu ne ay kilifa diine lañu nee nañ sëriñ lañu ah, waaye nag buñ dee ay sëriñ tam ah dañuy xool li xew ci dëkk bi dañuy suivre ci dëkk bi mu ne nii nga jikkowoo continuer ci nii rek billaahi mu ne billaahi lu la discipline lu la yar mayul. lu la yar mayul lu la yar mayul. leneen ko may mu ne leneen du la ko may. looy ndax looy jaay. ku nekk nit ku ne. yaa ngi ci dikk bi yaa ngi ci dikk bi. boo dofee. boo dofee am na ku la gën a dof. boo reewee boo reewee tam am na ku la jogati ci réew. boo yaroo am ku la gën a yaru. ku nekk nekk rek. ku nekk rek ah, nekkoo ndaare nekkoo première yaa ngi ci digg bi. nga nekk ci man boog li ma bëgg ci digg bi. mu ne yàlla baax na bi nga nekkee man li ma bëgg ci digg bi muy yar ak i teggin xam sa làmmeñ xam li nga bëgg